tool yi nag ñoo nag ñu arrêté ndox fi ñu toll nii koor gi jeex na est-ce que usine di ngay entraîné ci biir koor gi. waaw dañu rek affaire bi meñcee rek. waaw ndax koor gi moom mënoo entraîné ni nga doon entraîné da ngay meñcee rek. Mm-hmm. fi ñu toll nii usine fan la toll. non fu ñu toll nii ñu toog di xaar rek. gars yi lu ñu wax. a ah, ñu ngi ci woote rek. du ñu wax ay combat mais combat yi ñuy wax arrangé ñu comme ñen ay booy rek de man essa yi man man nag de maasoon ci booy yi trop trop trop dañ ma jox gars yi ñu ma bëre ak ñoom. comme ñan gars yi comme ñan. waa essa yi ñoom Diop do maa am na combat fi ñu toll waaw am na combat mais ñaari avance dafa xew. maa moom komba la maa moom combat la man xoolatuma keneen de moom laa visé. Diop do Diop do kese. da nga visé Diop do kese. damaa war a bëre moom man set combat laa bëree. moom mu def dix combats. waaw moom mu def dix combats. déggagul mu ñal de. waaw de dama damaa bëgg nag mu dégg mu ñal. <laughs> du caaxaan. mais usine xanaa gars yi dafa am lu ñu la dee lu ñu yëgut. xam nga lan moo tax ma la loolu. Ah. dama xam ne instant bu ma amee combat. barke rasulaay li may damay duy stade bi ndax dama am jàppale stade yi man fii laa doon toog di jooy pour jàppale te stade yi ñëpp ñooy sama ginnaaw damay toog ba sa nit woo ma téléphone ne ma mbor xoolal sa weef ma xool weef gis lu bari ñu ne ma boo amee combat ma muy loolu instant yi pare nañu te waa Dalifor ñëpp a ngi sama ginnaaw. bu dul Diop 2 bu dul Diop 2 ndax ko xaar fi ñu doon ndax lekk na avance mënoo ko xaar am na am xam lekk guñu avance. waaw bu dul Diop 2 ma jox kolifay. kolifay démb caaroy. waaw. gaynde ko fanaanoo mer googu. ah na fanaanoo mer loolu garaawul. dañ ma ko jox rek ma dogali ko. ndax gars dañ koy daan rek. yow fi nga fi nga làmb yëpp a man ñaar ñooñu soxla man bëre naa ak booy yëpp te boo gisee ma wax kolifay sax kolifay damaa dugg koo ñam. Ah. waaw kooku daan. maa kii bi may bëreeg Modou Mbaye. waaw ñoom ñoo ko indi ma daan ko kon na ma jël. Ah, am na ay xale yu fa nekk kay sax laaju ci xale yooyu. ko moom mooy sama naataango foofu moom kese. ah waaw.